Eh, waaye sama gars gis ngeen àdduna bi fi ngeen toll nii ah gis ngeen xale bi nu muy def xaj bi xoole xooleen xooleen matt matt ah matt gis nga xaj bi daw na gis nga. dañuy wax ci li nga xamante ne nii mooy concert bi nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba di leaderu Medina moo ko may woon démb euh, fële ca Medina donc ñu gis ne Wally euh, dafa. def ay lumière yoo xamante ni dafa méngoo ak euh, couleuru LGBT maanaam wàllum góor jigéen ñi donc nag loolu moo tax internet yu bëri doon commenté naan Wally est ce que du lii est ce que du laa euh, ba ñu bëri maanaam commencé ko weddi ci démb donc ni ki démbul waaw loolu nag commencé causer polémique ci biir réew mi donc gis ngeen gars yi ñoo gisandoo mu nekk vraiment lu xaw a doy waar Nous euh, allons leen jox rendez-vous très prochainement.